mu nga taw day am à chaque fois impact ci sécurité routière bu tawee souvent les routes sont inondées nan la ñu war a dawalee nan lañ parce que lu tax ñuy wax nan la ñu war a dawalee mooy benn sàmm suñu oto mais aussi sàmm suñu kaaraange bopp parce que ñaar yëpp moo engagé ci njëkk ñu ne souvent booy dawal muy taw li gën a sage mooy nga gaare su fekkente ne mën na nekk mhm. ne pas circuler sous la pluie mhm. su fekkente ne nag mënta ñàkk ngay dawal muy taw conseil bi lay njëkk jox mooy ndox mu taa di jaar. lan motax ñu wax ko parce que am na paramètres yo xamné ne kii daawul souvent du ko maîtriser parce que auto dafa am nu ñu ko configurer am lu ñuy filtre à air. day aspirer air ci biti diko jox moteur bi comme genre poumon. Mm. pour moteur bi diko ko utiliser. pour mm. compression di mën a am. Mm. tey jii boo duggee ci ndox nga ne da ngay xuus xamoo pompe à filtre à air bob ban hauteur la nekk. bu commencé jël ndox dootul filtre à air pompe lay nekk day aspirer ndox. yobbu ko ci moteur bi moteur bi calé auto bi dorul dem on n'est pas pour moi day dorul dem ñaata yon nga gis moy taw nit di dugg ci auto di xous di dugg ci ci ci ndox mu ta di xous ba yag auto bi fay ci dig ndox gis ngeen ba tay ñuy pousse auto muy genn di xous ndox mi auto yu bari ñak nañ ci seen moteur bi ci gëna danger bobu sax moy c'est le moindre mal moy moteur bi nga yaax mais bi ci gëna danger moy mën nga dem ba ci biir pression bi nga xamne mom la ndox mi di indi du permettre nga tijji portière pour genn moteur bi tangay bobu mu tangone ndox mi su ko laalee am na saxaar bu muy dégager gaz carbonique la lay fekk si biir oto bi mën na la étouffer mën nga perdre connaissance. ci biir oto bi c' est hmm. des cas qui sont déjà arrivés parce que moteur bi dafay hmm. bu laalee ndox day am saxaar bu muy hmm. dégager. saxaar soosu noonu mënul dugg ci biir ndox mi te fa mu jaar ci conduit d' évacuation yi nga xam ne fa la si la oto bi. saxaaru lan la saxaaru métal bu tàng saxaaru huile saxaaru ndox saxaar yooyu yëpp ñoo boolewoo dugg. léegi nag mélange toxique la boo xamante ne yaa ngi koy noyyi. parce que oto bi instant boobu fay na amatoo contact vitre yi mëntuñu wàcc. Hmm. da nga koy noyyi tu perds connaissance. donc danger la moo tax ñu ne il ne faut jamais s'engager su fekkente ne gis nga ne. Hmm. ndox bu taa hmm. beneen bi topp ñu ne booy daw. ci tali muy taw éviter le rebord yi. parce que am na lu ñuy woowee les conduits d'évacuation d'eau mooy régal yi. dëkk bu mel ni Sénégal. bokk Nicolas yi ferraille dañuy ñëw jël ko. Ah, sama mbokk yi waaw. ay kàmb ñoo fay nekk. def ko ferraille. waaw ay kàmb ñoo fay nekk chaque fois buy taw moom gis oto bu ñëw ba dugg ci biir. Mhm. am na Gueule Tapée Médina euh, Blaise Diagne yooyu yëpp dañ ko fay gis H&M. ba ci HLM bi H&M aussi dañ ko fay gis. donc ñu ne moo tax ne sooy daw. ba ci H&M mhm. daw jox anecdote. sooy daw mhm. da ngay jéem a daw si digg bi d'accord parce que tout simplement évacuation d'eau yi mi ngi amee ci trottoir parce que ni ñuy configurer tali dañuy def de telle sorte que ci reboori lay panté mhm. donc évacuation d'eau yi ci foofu lay dawé mais aussi fa la kàmb yi nekk tey jii soo fay daw di nga dem ba instant pneu yi mhm. am contact direct ak tali bi mhm. donc dafa am lu ñuy woowee perte d'adhérence manam tay ji freiner ça, sax du taxaw parce que auto bi fay patiner ndax ndax waaw muy lu tubaab bi wooyee planning maanaam hmm. da ngay commencé di di tëmb hmm. oto bi dafa commencé di tëmb yow contrôlé too mën nga freiné oto bi commencé di def lu ñuy wax tëdd hmm. waaw beneen bis topp ñu ne ngay éviter di freiner lors des virages booy dawal ci tali ci taw boo bëggee freiner def ko en ligne droite cette règle là elle est valable même en temps normal mais elle est plus dangereuse en temps de pluie parce que la route elle est mouillée comme je l'ai dit tout à l'heure l'adhérence elle eh, est diminuée adhérence moy tay hmm. ji nga freiner crampon pneu yi agrippé wu ci goudron bi auto bi taxaw hmm. su fekkante ne day taw tali bi dafa toy amulo lol nonu ci digënté kan pneu yi ak goudron bi ndox bi mi ngi fa hmm, mu nek ben couche bo xamantene voilà day glisser eh, tay ji bo freiner bu auto bi waron taxaw sur 100 mètres sur 10 mètres lay taxaw bu amee obstacle si diggante bi doo ko mën a souvent lors des virages day nek luñu ñu du tête à queue bi day commencer di di tourner di di pivoter donc lool tamit bokk na ci bu fekkente ne tamit dem nga ba sa visibilité réduite ñu né da ngay tal les feux de brouillard avant mhm. feux de brouillard arrière kenn du ko utiliser parce que dafa am ben effet éblouissant ki top sa ginnaaw du du gis dara du mm-hmm. gis donc loolu aussi mu nekk lu ñuy lu ñuy éviter mais li gën a important mooy bu ñu demee ba dugg ci nawet comme période bi mm-hmm. automobiliste yëpp war nañoo vérifier seen i essuie-glace mm-hmm. ndax ñi ngi dox même pneu yi waaw xool seen i pneu ndax rainures amatul rainure yooyu noonu moom mooy permettre ndox bi di évacuer di jàll bu fekkente ne dem na ba amatul benn rainure dafay mel ni bal gis nga balu football boo ko dóoree ci ndox day amatul nii mais boo xoolee après dafay taxaw oto tamit noon la boo freiné day mel ni gaal mm. ni muy tegoo ci géej di dem mm. parce que gaal amul renif dëgg la noonu lañ ko configuré donc bu pneu yi demee ba jeex mm. boo freiné oto bi day continuer di patiner di dem